di inter def interprété de bonne foi kii andiwul rapport yoon dal ci kaw. Cheikh oui lu tax ñu condamné Sonko euh, relaxé Mimi te ñaari dossier la yoo xam ni xaw nañu nuroo. waaw moom pour man dama jàpp ne ay dossiers yu nuroo la sax. parce que mm. diffamation la. benn donc euh, ñaar bon après après dañu apprécier ndax diw indi na rapport indi rapport mais dama jàpp ne ay dossiers yu yu yu xaw nuroo la léegi nag. Euh, comme li ma wax rek le juge on attend ses motivations euh, gis nañ nag par contre euh, bon on était aussi quand euh, les choses se, se passaient donc du coup Ousmane Sonko wax na ci mbiru rapport rapport bi nga xamante ne malheureusement il a pas pu mm. n'est-ce pas produire ce rapport là bañ ko bañ bañ ko woowee léegi nag d'aucuns disent que bon il avait le rapport mais il voulait pas parce que le rapport n'était pas encore rendu euh, comment dirais pas

parce que depuis quand même bi ñu waxee euh, scandale euh, euh, kii nu mu tudd 1000 milliards Covid 19 bi Fatou yàgg na quand même. ça ça mm-hmm. commence quand même à ah à à trop faire et les Sénégalais sont impatients. et c'est un un fait qui intéresse tout bu ñu doon xaar d'ailleurs Macky vidé ko mm. bu tàng la dossier ñëpp dañu bëgg a xam mbir mi fan la féete. léegi nag à force de garder le mystère autour autour de ces rapports là kenn xamul lan moo nekk ci rapport bi. Mm. kenn xamul ndax ki ñuy jiiñ. ñu tudd ci rapport bi def na walla deful walla même bu deful ban responsabilité la am ci lii ci mbir mi donc yooyu yëpp dañ koy noppiwaale ñu toog bon voilà je pense que c'est trop ñu nar a xaar ba euh, peut-être boo moytu 2024 dina jeex. Mm. on sora pas qu'est-ce qui s'est réellement donc dama jàpp ne peut-être il faut changer de de de mécanisme di def de telle sorte que les rapports ñu koy gën a biral di ko gën a gaawal ba nga xamante nit ñi dañuy en du moment que une action judiciaire est enclenchée rek sénégalais dañu toog di xaar dañu ne ah wax dëgg yàlla juge bi woo na les parties et déglu na leen mu ngi def liggéey bi les sénégalais seront beaucoup plus prudents mais bu dee ni dañuy jékki-jékki tey dossier dossier bi peut-être euh, c'est sur la table du procureur mais procureur il n'a pas jugé opportun pour le moment de de de quand même prendre les les en main donc day doon li nga xamante ni day alimenter le débat public. Mhm. et les gens vont en léegi nag euh, ñun ñemewuñu wax ne Mansour Faye moo def. wala deful. mais euh, d'aucuns seraient tentés de dire que Mansour Faye peut-être li ñu koy jiiñ am na lu mu si laale. parce que peut-être il n'est pas blanc comme neige. donc foofu laay waxee question de responsabilité parce que ku nekk aussi mën nga nekk si si si si bërëb nga fay liggéey nga nga jiite ko mais euh, une responsabilité sa absence de responsabilité totale day day jafe. day jafe donc peut-être euh, yow joxe woo ay consignes nañu. mais yaay responsable moral bi voilà donc yooyu yëpp dañuy dañuy dañ koy soxla apprécier ba nga xamante ni juge bi moo war a def euh, procureur def liggéeyam juge bi àddu si ba nga xamante ni Sénégal yëpp dinañ xam mais les rapports là encore une fois vraiment euh, on en a marre quoi. Mm. franchement mm. moi je te dis que qu'on en a marre moi j'en ai mm. plus de 41 rapports ou je ne sais et après. à qui n'ont jamais de suite. À quoi sert cette publication là finalement donc après on s'impatiente bon après maintenant. même après production rapport yooyu sax dafa am coût. dafa am parce que ce sont des enquêtes ce sont oui il y a des gens qui sont payés pour faire ça mais après ça day day day dévaloriser le travail de ces gens là parce que ils ont fait des rapports ils ont écrit ils ont fait un travail bon mm-hmm. je vais pas dire excellent parce que jusqu'à présent aucun juge n'a dit que euh, voilà ce qui est dit dans tel rapport est vrai ou faux donc ça veut dire que je peux pas dire si c'est excellent peut-être le Donc je ne pourrais pas qualifier le travail d'excellent. Mais en tout cas, ils ont fait un travail, mais le travail est en train dévalorisé. Mm. Mais beneen côté bi euh, beneen côté bi tamit mooy mais même les Sénégalais à un moment donné après ils vont commencer à se poser des questions ils vont mm -hmm. se dire mais rapport yu ñu doon tudd di ko mettre la table di ko brandir ba léegi mënuñu fexe ba avancer ci rapport yi est-ce que finalement li ñu doon jiiñ mm. euh, euh, ñi fi nekkoon lañ doon def wala li ñu leen jiiñ ñoo ko def finalement est-ce que ñoo ko def est demuñu ba si biir ñu càmbar rapport yi xool ko gis ne ni peut-être rapport yi dara nekkatu fa. Hmm. dara nekku fa loo xamante kon ñaari cas yëpp ñoo am intérêt pour que yëf yi léegi ki nga xamante ne aussi dañ ko jiiñ tamit pour la postérité et pour son honneur. kooku tamit soxla na ñu woo ko mu ne saa waay affaire fii la jaar jaarul fii après on lui dit mais écoute monsieur vous êtes relaxé rentrez chez vous et puis loolu sa famille aussi xam na ni kii kat ndekete sunu papa ji wala sunu maam ji wala sunu mhm. yaay ji ndekete lañ ko doon ji taqewu si benn yoon donc encore une fois son honneur xam nga est lavé loolu la xaar mais vraiment euh, les dossiers là, ça à durer. Je ne sais pas maintenant, chaque fois, euh, bon, ils ont ce... malheureusement, moi j'ai contre les juges et, le personnel qui est dans la justice. Mm -hmm. Mais ils ont ce slogan, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique, mais etc. Mais franchement, mm-hmm. le peuple, en, a, en a marre, quoi. Le peuple a envie de savoir, <laughs> mm-hmm. est-ce que les accusations, est-ce que contre l'ancien régime là, mm. euh, à l'instar de, de, certains euh, ténor du régime de Macky est-ce que ces, ces accusations-là sont avérées ou pas si elles le sont ñu wax ñu si elles le sont pas ñu wax ñu après on tourne la page nous on va à, à, mais on peut pas être pris au pris en otage. Mm. pendant tout ce temps-là on sait pas vraiment lan moo xew si biir rapport yi ndax dëgg am na ca na dëgg am ci ku laal ku laalul franchement ça nous fatigue finalement on s'en lasse quoi. Mm. très bien Cheikh alors ñu avancer Adama dama bëggoon poser